maa ngi leen doon wax ci mbiru aada bey wax ji bari lool nit ñi wax lu nekk mais su may propos duma ci wàññi virgule duma ci reculer virgule duma ci modifie virgule duma ko def yaa ngi dégg saarata nga ne duñu ay xarit kon jéggal ma xarit laa la foogoon comme duñu xarit jëluma la suma live wuyuma la suma appel c'est simple su dee da ngay kaf damay kaf soo kaful kafuma dama ne suma xarit nga nga bind ne duñu ay xarit léegi kon jëluma la suma live suma téléphone maa ko moom wuyuma la bu dee da ngay kaf damay kaf boo kaful kafuma point démb maa ngi doon wax ci mbir aada aada aada ba nit ñi di tey teylu mel ni xamuñ li ma doon wax ñii di jaar fu leen neex ñii di wax lu leen neex damay répéter li ma waxoon démb insisté ci ba pare bàyyi àddina ci kanam li ma waxoon démb ça n'a ak Viviane ak doomam c'était pour protéger leen ngir ëllëg su problème ak fitna ak jafe-jafe amee surtout mu gaaw buñ ko saaga xas ko ndax musicien la deru musicien dafa yomba yàqu yaay la deru yaay dafa yomba yàqu jigéen bu nekk ak ay doomam la dafa yomba yàqu artiste la dafa yomba yàqu lii laa doon wax démb ma indi ay révélation ci aada yoo xam ne bu dee cent la man waxuma sax dix suma message gudd na gàtt na lii la c'est na rien à voir ak iñaan ak dem fële de ku iñaan boo ko xoolee danga koy xam mais nag duma ci pousser duma ci avancer alerte naa vidéo yaa ngi fi man Cheikh Ahmed Cissé retiré wu ma virgule wàññiwuma virgule tuubuma jéggaluwuma li ma waxoon démb tey laa ko gën a dëggal te bu dee cent diis laa génne waaye nag dafa am benn jaami yàlla bu tudd Abdou Karim Metsu suma nit la man suma xarit la ma nekk ci avion ci kaw jaww ji te man su ma nekkee ci avion beneen nit laay doon mu ne ma aada bay suma xarit la ñaan naa la dossier tegal ma ko ci suuf bu ci waxate ma ne ko may naa la loolu ngor googu ma séq ak ma séq ak metsu moom laay sàmm ci mbaaxu metsu nee na ma dama lay booleeg moom ma ne ko duma xas nit ba pare ànd ak moom su ma ngor munu ko ndax xaritoo du dëggu bugguma wax ak moom téléphone yow yaa ma ñaan yow laa ko séqal bàyyi naa mais la ma doon alerte danger ba ma doon alerté ba tey ça exist te maa ngi gis ay soi-disant maam ak bàjjen démb ngeen nekk ci ay live yu ñàkk fayda dama leen di tontu rek parce que man duma bàyyi weer ci fanam te xuloog man li ci gën a yomb mooy noppi mais soo waxee ma wax rek dama lay rey yéen bi aada bay doon yóbbul warugar Zeyna Ndour ana ngeen woon en tant que bàjjen yéen bàjjeni TikTok ngeen mais ni ko nit ñi gisee ci réseau sociaux yi ngeen ko gisee su mbokk gi dëgg woon mu sincère du ngeen ñëw TikTok di ko défendre mais si présentation yi den naan kii mooy bàjjanam mais du ngeen dem ci live fu ay doomaraam ak ñuy abise jigéen ne ñooy bàjjanam ak ñun ñëw ne ñu ngi teew ci xew bi dafa ruslu te da ngeen wane seen faiblesse ci dëgg-dëgg ñun suñu aada mbokk bu nekk benn kay ñaani jabar respecte mbokkam mbokk yu uuf ko jàmbur du yóbbu warugar dañuy dem tiim ne kii bàjjan la kii nangu la mais yéen bàjjanu tiktok ngeen seen bopp ngeen suufeel démb neexumaa tontu ndax dama am làmmiñ licence ko ba pare nekkul suma poos mais bàjjan yi tontu tiktok dangeen ngeen suufee da ngeen wàccee seen bopp te suma communication sax su ne day jëriñ fippu gi ngeen bëgg a fippu dem may naa Viviane ndam ndax mbokki jëkkër mbokk maanaam ay gorom dineen ñëw te saa suma wax du ngeen doon dem ndax duñu leen yëgal bugg a wale wane wale importance que ñoo bokk jekku naa leen poño naa leen point boo xam ne fa laa leen doon iri te dem ngeen yeneen njëriñ ci suma communication mooy alerte bii aada dina nëbb jikkoom yu bari dina wàññi lu bëri te sëy bi mën na gudd fa loolu mbaax la goo xam ne def naa ko ci saa yu ma waree wax dama xam lan lay wax ak nan lay wax démb wax ji bëri na dafa iñaan dafa nangam yàqkati dem la Sénégal dañuy déglu waaye duñ dégg réew mi problème bi yëpp ñàkk a déggante la moo tax nit dina wax nga saaga ko bu ëllëgee nga ne ko eh pourtant si sa waxoon na ko de bu ma kenn waxoon naa ko lépp laa xam lépp laa xam toog ci ba pare di wax lu ndaw te saa yu ma waxee rek bàyyi naa ëllëg bu tontu ñëwee pour ma tontuwaat yéen mbokki aada be yi ñëwoon ci internet bi yëpp di wax démb da ngeen suufeel seen bopp wane faiblesse su aada be ndax ba muy joxe warugar kenn ci mbokkam teewul ba tontu jotee ci internet ñi ñoo ñooñu dañoo toog noppi yéen ñu ñàkk fayda ji soit de sa mbokk yéen tontu parce que tekkiwu leen dara su ngeen tekki woon dara mbokk am na fu muy présenté boppam bu mbokkam di takk sëy bii nag Zeyna bëgg na sëy yàlla na ko ci yàlla defal jàmm Viviane ànd na ak doomam. nduureen yi bañ leen am leen seen raison bisimilah dem leen man Cheikh Ahmed Cissé la ma waxoon démb ma répété ko sëy bi amul bakkan du dund amul tànk du dox ndax luñ takk ci lu du dëgg du dem la preuve ci suma bopp su ma ànd ak Kaliphone demul fenn ndax bëggul ma woon bëgguma ko ay ñaari doomaram yi doon ànd pour seen intérêt la mu jeex ku ne kat sa ndey dem ci àll bi mu jeex tak c'est la pire réalité lii mooy triste dëgg bi man tas naa tas tas xam nga lu tax jaaruma woon ci dëgg lu waay di def ci yoon yàlla lu dul dëgg du dem lii xam-xam la hadis la lu may wax kee du ma ko changé li may wax man du ma ko changé awma virgule bu ma ciy soppi waxit dëgg bu jotee dëgg la loolu laa bëgg ngeen xam te senegal dafa xat Sénégal dafa xat ñëpp a xamante ñëpp ñoo xamante waaye yéen alarme yi takk rek ci commencement bi xam ngeen ni lii mënta dem dëkk Sénégal ci ndey ak baay xam nga man sa den naan Gambien la man léegi waa Burundi la amoo problème mais dëkk Sénégal ndey ak baay di takk ko mel ni doomi yi sundur ak buubandur ak Viviane sa benn mbokk teewul mais duñ tuuti ci réew mi quoi question boobu tontu leen ko lan moo tax mu dëkk ci dëkk bi moom aada bi am fi ndey comme yéen bàjjan yi ngeen di am bàjjan ak lépp ci réew mi muy takk jabar benn mbokkam pour pourquoi muy benn ñaareel ba bàjjen yu riis yi xale bi am xam nga wuykat yi dañ daan woy naan boroom bàjjen borom bàjjani lam yu diis yi ci réew mi mais bàjjani xale bi sëriñ Youssou Ndour kenn tuutiwul ci réew mi macha allah ba ñuy nangu teranga gi anañu <laughs> ñaari pourquoi yi su ngeen ko tontu woon attentivement ci xel dégg Cheikh Ahmed mais du ngeen nante nante yi rek a dégg donc ci gàttal damay tontu la ma bëggoon a tontu Abdou Karim Metsu mënut maa ñàkk a tontu loolu ndax du suma kilifa moomu ma suma xarit la ñu respectante bëggante ñaan na ma may naa ko ko mais li ma war a tontu dama koy tontu ndax moom dem na ci snabam teg fa aada bee ne ko ko laal ma doxaan sa ne durable la lii man suma tiktok la maa ko moom suma durable mais su ma ca paree nag may naa ko cër bi ma wax ji duñ ma ci déggati mais changé wu ma soppi wu ma jéggalu ma retiré wu ma ndax dama xam li may wax dama ci toog li may wax man dama ci toog lu baree baree baree baree bare mais nag nit ku nekk doo dee ñu lekk la doo dee ñu naan la ay nit rek nga am te bu ñu la ñaanee nga may Abdou Karim Metsu moo ma ñaan ma may keneen ku moom bu ne woon na ma wax dëgg bim may dama lay boole nga xamante ak àddu be dama ko ne comme wax naa lu ñaaw ci moom rek bëggatuma ko dootuma wax ak moom téléphone bëgguma koo xam ndax gëw ma tiim as gor ci penc xas ko ba pare xaritoog moom du ma fonctionner noonu kon du ma noonu beneen bu ci des <clears throat> gis nga yéen ñi nekk ci ginnaaw masali di rappi rappi nii di dof dofloo ko jéem a jaay xamadi dama bëgg ngeen yem dama bëgg ngeen yem bu baax a baax a baax a baax gis nga bu ngeen yemut bu ngeen yemut lépp lu ngeen xam ak lu ngeen mën ci man def leen wax leen waaye su ma ñëwaatee ci dossier Massaly billaahi wallaahi tallaahi du ma noppi te état bi woowul ko ndax dossier yëpp yu leer la te loo la du ñëw sax ci biiru maanaam léegi àdduna yëpp xam ne ne moo kattama ma loolu waxatuñ ko xam ne ne mu jur doom ji waxuñ loolu mais su ngeen dof dofloo seen bopp ba ma ñëwaat man <coughs> ci dossier lu leer laa leen di wax nguur gi dinañ ko parce que moom ak Mame Boye Diao lu ñu luubale ci suufu réew mi tama teg ci suba tànk xam ko bu baax of nag dina ko génne du dangay ngay réew lu lu masali di guddal lameñ ak sa cagaju ndaw ji yabaate xamuñ seen bopp nga xam ne ñëpp nga tëddee ci sa tool ba koo ci katul indi na la koo kat suñ ma fi buggee fonto dinaa la uññi taati neen digg bëccëgi ndar kàmm ngay dox Dakar te doo di wayee di doo tekki dara lu leer laa la wax kenn du ne waxuma ko nag sa caga ji neen yam palaasu caga nga di leen tëddee di leen may xaalis nga di leen boolee góor mu leen ñu leen di tëddee di leen may xaalis yow sa jëmmi bopp koo ci bëgg a nàmp nga nàmp ko ngeen nekk àndu caga yéni neen mais suñ ko dépassé ci yow indi ko ci man du baax ci yow man boo ma tooñee duma la dóoru damay dem dóor fay métti sa baay laay màtt ba mu yëg ko man noonu lay fonctionné mais du ma fi nekk di am jokkoor maajo jokkoor maajo maag xale duma ko may xale ñi fi jaaroon kenn neexlewul parce que du ma wax lu ma xamul du ma wax lu ma maîtriser wul du ma wax lu ma amul preuve te su ma ko xamee maîtriser ko am preuve ba pare xam naa lu may waxee xam naa fa ma koy teg parce que sénégalais boo waxee lépp ci la nga wax lay jël tontu la sénégalais danga nga koy mosal soo demee góos na ko duraat bu la weddee nga ne ko góos la mu ñëw góos fekk fa vérité ne ah wax nga dëkk man I know how to communicate with you people very well te fii mu nekk nii nii nii nii jamono jii <clears throat> nekk ak man xarit dafa gën a wóor noonu ak man ëllëg xaw ma mais tey jii waxtu bii nii nii nii ma toll nii non non non non ku ñëw ci ordinateur bi di nga wax lu leera Fatoumata Ndiaye Fouta tàmpi takk nga sa live ay yoon yoon di ma saaga ndey di ma saaga baay di ma wax lu nekk tama def ma la daal musuma wax ak yow ngir Kaliphone ngir leneen ak leneen waaye du tax ne jigéen nga <clears throat> te damay supporter jigéen gis nga ñi dajaloo porte plainte Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi dañ koo porte plainte dinaa ñëw ci fan leen jaar nan leen ko bëgg a sonnalee kan leen jox dossier bi ak ñan ñoo nekk ci ginnaaw plainte bi den ko bëgg jaay doole lundi dafa war a wuyu ji mais ci dossier bii den koo tooñ te incha allah dinaa ko soutenir ci bii ba mu jeex ñi nekk ci ginnaaw yëpp ak kañ jox dossier beeg lañ ca nar ak fañ jaar pour luñ ko nar a toroxale yëpp mun suma digg loxo bi mun suma digg loxo bi ñoom nag ñooy xool dañuy avancer bëgg jaay Fuuta Tampi doole ci nguur goo xam ne dafa soppeeku jub jubal jubbanti la ñu wax wala dañuy reculer dellu ginnaaw ñooy choisir mais bés buñ ko defee lu luñ ko war def en tant que jigéen man Cheikh Ahmed Cissé ma wax ku nekk ci ginnaaw am na ku nekk Europe am na jigéen ju nekk Sénégal bu ñu monté waaye nag Fuuta Tampi du suma xarit yéen ñëpp xam ngeen ne yàgg naa takk laay fam di ma man di ma wax lu ko neex te amul ci benn preuve jotewuma ak moom dara mu ne parce que Haalpulaar la Kaliphone Haalpulaar la waaye loolu nit la te nit dafay juum weesu na mu ngi suma ginnaaw bugguma it doon xaritam mais injustice bañ ko nar a teg mu ñëw suma ta taabul bi dinaa ko régler moom la engagé la muy def moom la engagé mais ci bii den ko dool jaay ko doole lii laa am lu ma wax ci mbiram Ehm, ñu ngi may signaler mbiru Marilo mbiru Marilo Marilo doomu Ismaïla bi nekk ci prison bi ak ay millions yu bari dégg naa ci lu baree baree bari am na ñuy bind ne <coughs> am na ñuy bind ne baax na ci Fuuta bi kaay leen ma wax leen dara kaay leen ma wax leen dara dama bëgg ngeen comprendre dara nit mën na def lu bon fii mais suñ ko defee lu bon xeexal lu bon li mais sénégalais da ngay def benn bu bon lu ñu la ñu ne daf la mooy da nga ko mérito yaa ko defoon duy demee noonu ku def lu bon neen ko jàpp ci lu bon loolu mu subir conséquence bi mais suñ ko defee lu bon nañ ko xeexal lu bon lii mooy réew ah nii la réew mën a demee mais sénégalais boo génnoon ne yàlla baaxut nit mbéj la dóor la gaañ la den naan parce que yaa waxoon yàlla baaxut mbéj bi daf la mooy mais c'est pas bon réew du demee noonu ah yàlla baaxut bi crime la neen la dóor ci loolu waaye mbéj bi tamit ki ko def crime la nag subir conséquence yooyu lii mooy équilibre justice pour société mën a dem mais c'est pas footam Fatoumata Dia Fouta Tampi lii la wax lale su leen ko war a jaay doole daf ko mooy baax na ci moom dafa rëy làmmiñ moo tey rëy làmmiñ su buñ ko naree tooñ neen taxaw xeex ko pour ñetti mbir réew amul justice du dem doomu aadama dafa soxla mais jigéen la te buñ ko jàppee yóbbu ko sonal ko bu ma génnee wax dossier bi ngeen xam ne fen la man lii mooy suma mbir nekkuma fi di am man awma xarit nobody is my friend ay am di jàmmi laa am wala ay mbokk wala ay àndandoor mais am ma xarit su ma xarit man su xarit man man su ma bopp la I am a friend to myself man mais sénégalais dalay cadre fendre lu ñu def ñu ne baax na tey dangay gis ku wax ne dafay xeex justice déglul Sénégal niveau naa fekk duma ma ko retourner dama koy répéter déglul sénégalais niveau naa fekk daf naan dafay xeex injustice mu mere la ñu def la lu bon mu ne daf la mooy ça veut dire que tu mérites ça parce que moom da la mere justice dépendrul ci sentiment bi nga am envers la personne dépendrul ci loolu justice ci acte la dépendre ci règlement la dépendre looluy justice mais sénégalais bu la bëggee loo def ñu ne yaa tey bu la bañee loo def baaxul loo wax du dëgg seen sentiment yooyu ngeen di dundee mooy yàq diine senegal seen sentiment yooyu ngeen di dund mooy yàq aada senegal seen sentiment yooyu ngeen di dund mooy yàq tariqa senegal seen sentiment yooyu ngeen di dund mooy yàq politicien Sénégal politicien Sénégal yàq institution Sénégal institution Sénégal yàq jikko sénégalais jikko sénégalais yàq yàlla merale xam-xam pire lay wax politicien buñ fi fal boo bëggee toog sa place di nga jubali sénégalais mënut laa fal nga jub mu bàyyi la fa ngir danga jub parce que jub arrangé wuñu moo tax kuy dugg ci politique parce que da nga gëm lii da nga gëm lii respecté naa la ko mais man Cheikh Ahmed Cissé saa yu ngeen ma déggee ci politique na ma sëñ bi ñaata nga encaissé parce que topp ma ci yàlla te gëw ma ne mën ngaa defal suma àdduna because I understand later that budget Sénégal mooy li nekk suma poos loolu rek la budget Sénégal toll ci man sécurité sénégalais mooy man endroit bi ma nekk jàmm Sénégal mooy suma jàmm man mais am na ñu nekk Sénégal di dund lu safara gën mënuñoo lekk mënuñoo naan xew bu ñu dem ci biti la ñuy toog mbokk gu ñu dem amuñ fa kàddu simplement parce que dañoo pauvre du jikko ju rafet niveau hypocrite boobu ngeen nekkee moo tax këru diine yi nekk senegal bépp nag seppiwuma benn yépp laa wax dañuy bàkkoo këru diine këru diine ñaara fa war a àtte muy sunnatu rasulillahi ak alquranul karim waaye première faute bu njëkk ci kër diine yi mooy bu ñuy tànn xalifa xooluñ jikko ju rafet xooluñ maqaama ci yàlla xooluñ xam-xam bu rafet xooluñ jëf ju sell ku fi mag rek la waa su fekkee man ci diine laa war a jiite yaa ma mag te la ëpp xam-xam dàq laa jaamu yàlla gën laa sawar gën laa sell kan moo war a jiite ci diine inna akramakum indallahi atqaakum waaye déedéet dangay toog kuy toog sa di ñaanu naan ñaanalal suma jëkkër mu falu sonn neen fi yàgg naa sëy suma papa bis bu faloo ñi yëpp dinaa tàngam seen ndey danga koy dégg ci kër di kër diine bu suma papa faloo ma kat seen ndey sa papa falu xalifa nekk buur du jiite ci jumaa ji du firi alquran du waxtaan ak jullit ñi fu ñu ko fekk sëñ bi dafa fatu balaa mu lay recevoir nga am ndomba tànk wala nga tekki dara ana mar lislaam ana ki mar laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah ana ku koy nandal di nga sax ci jàpp julli jéem a jàng rang weer doo gis sëñ bi ab musicien romb la dem gis sëñ bi parce que mën naa neexal ay bëkk nekk waaye yow mi mar yàlla te amoo koppar doo dem ana diine boobu li moo yàq kër diine moo ngay dem ci baar bi nit di man naan la abal ma sàngara barki sëriñ Tuubaa dinaa la fay barki Seydina Limaamu dama lay fay ci lebal ma sàngara ci ay jullit umul xabaayis nga gis ko sàcc kamera jàpp ko mu ne barki bàyyi ña sàcc ba ko yow gëm nga lislaam ba sóobu ci yoonu suuf yanke bëgg bàyyi ña di sàcc njub gi mag ñi woote woon bu ci ñépp nekkoon làmb du am ci réew mi duñ xeex góor jigéen mais on est tous des naafeq et hypocrite cent pour cent et première qualité mu di leen neex mu di leen naqari loolu mooy liy dëkk alright ok léegi merci beaucoup kii mu mën a li nga sol dafa rafet jërëjëf xaw ma maa ngi yére bi ku gën a rafet ina uh, ak mbaxana bi ci kaw xamu ko ci gën a rafet maa ngi leen di gis ngeen may interpeller ci kaw maître Dior Diagne ak Marilo ak ñi ko yoreel xaalis dama toog benn bis Modou Amar délégué Amar wooma mu jëfee jëfin bu màndu na ma dafa am ñu la soxla toog ci ligne mu noppi mu am ku tudd Mia Amar benn Moustapha Amar ci commencement beneen Moustapha Amar muy ñaari Moustapha Amar ak keneen koo xam ne fàtte naa turam man fàtte naa turam ñu wax lañ joteeg Marie fañ jaar ak mari wax ji gudd na bugguma ci nettali benn kàddu boo xam ne du noonu su boobaa damay tooñ ay gor fañ waxee noonu rek ma woo maître joor Diagne seen kanam ñu may dégg man waaye dégguñu li maître Dior Diagne di wax ndax xam naa ne man duma ma enregistré te wóoluwuma ñoom ñu enregistré ko tuumaaluma leen dama leen wóoluwul parce que ñaar ñuy xuloo ku ci wut preuve sa moroom mën nga enregistré ma nekk ak maître Diodiane plus de une heure de temps ci téléphone bi mais balaa joor Diodiane di ñëw ma ne leen d'après li ngeen explique amu leen benn preuve buy dugal joor Diodiane ma ne leen est-ce que Marie dafa tudd Maître Diop ñoom ñu ne ma déedéet ñoom ñoo ko wax li may wax ni yokku ma ci baat wàññiwu ma ci baat te Moudou Amar fekkee na ko délégué fekkee na ko ma ne leen amu leen preuve bu ko dugal ndax Marie tuddut ko joor indilu leen papier bu ngeen signé amu leen audio amu leen bindam ñu ne waaw amuñ preuve maree leen doon wax rek ma ne waaye ci suma xalaat man je suis libre dama gëm ne mari daf doon liggéey ak joor lii laa leen wax parce que suma gëm-gëm la ça engage que moi man la man maa ko gëm kenn moomul ma kenn mënu ma koo tere man loolu laa gëm ma jot joor ci boppam maître Dior Diagne wax ko li ñuy wax mais xam nga li gën a reetaan xam ngeen projet bi yëpp ay 600 millions 800 millions maanaam marché bi lan la woon. marché si jaada si jaada julleekaay buñ duree jàmm <laughs> donc. wërsëg soo dee dem rek day dem ma laaj leen ñoom yónnee leen ma ay preuve man duma wax lu amul preuve marché bi lan la nan la demee wax laaj leen yépp mu délégué mu ngi dégg de ñoom ñooñu ñëpp su fekkee lii may wax dama ci yokk benn kàddu neen génn na damay fen man ma doon waxal ci téléphone bi laa wax lii may wax su dee dama ci yokk benn kàddu nen na cheikh bi da nga yokk su ma wàññee neen da wàññ damay wax waxi nañ ko tëddee woon nañ ko tuddee woon man ñoom laa laaj ndax mari dafa tudd joor ñoom ñu ne ma déedéet lañ ma wax loolu laay wax gajaga maa ngi la gis nga ne jëlal sarata man jëluma sarata suma live duma ko jël Sarata su waree dugg suma live xam na suma numéro xam naa numéro na ma wax lan la war a wax su ma neexee mu ñëw wax ko fi su neexul am na live na dem taal ko mais du fii fii man may star bi maay ñëw wax kum neex déglu kum naqari nga génn forcé wu ma kenn ñëwuñ fi pour déglu kenn man képp la ñuy déglu di ma seetaan may def lu ma neex muy neex ñi may seetaan kum neexul abal man ndànk désabonné te génn dem neexaluma woote wu ma donc man la may nettali ñoom ñi ci téléphone bi ñoo ko wax ma ne leen ndax Marie dafa tudd joor ñoom ñu ne déedéet ñu ne déedéet ma ne leen am ngeen preuve contre joor ñu ne déedéet explication la ñu am ma ne leen lii taqalul joor ma laaj leen preuve keroog bañ coupé leen gëj a woote suma téléphone ma nit woowu ma la parce que du suma mbir du suma xaalis du suma xaalis awma ci soxla dañu bëggoon ku Willy Pandé ak Antoine Félix John Diome ci xaalis bi nga xam ne moom la leen joor moom la leen mariloo lekkan man Cheikh Ahmed mari leen jox leen ma preuve ba tey fii may wax ak yow yu yónnewuñ preuve suma téléphone ma noppi ci nan ngay ñëwee rek mu leer la ne mariloo nga jox sa xaalis nga ne mariloo ne joor lay liggéeyal jox ma preuve bu joor lekk mënoo ko indi nga may wax wax yoo xam ne man moom man personnellement suma xel nangu na ko maa moom suma xel xel dina nangu lu dul dëgg xel di dëgg dina ñëw xel du ko nangu arab yi mosuñu woon a nangu ne yàlla kenn la parce que trois cent nangam yàlla la ñu am man la ngeen ma wax seen kanam wax naa leen ne suma xel nangu na ko ba ma jotee joor dégg ngeen ma ne ko nangu naa ko suma xel man mais xel duñ ci àtte xel duñ ci àtte da ngay dem tëj nit parce que dama xalaat na yaa yaa lekk suma béy bi réer du demee noonu yokkaluma leen virgule wàññiluma leen virgule ñoom ñooñu woowoon ma ñaari Moustapha Amar yeeg Mia Amar ak ñooñu yokkal maanaam tuddaluma leen yokkaluma leen lañu la ma wax ak ñoom rek loolu la te ba tey fii may wax ak yow su ñu ñëwee indil ma benn preuve bu leer ne maître Dior Diagne en tant que avocat dafa jël seen xaalis te ñuy néew ju doole ma porte combat bi xeexal leen ndax bëgguma injustice mais nag du ma ñëw nga indi benn kilifa boo xam ne da nga ko taxal te amuloo preuve ma ñëw taal suma live parce que am na live wax lu ma neex adduna doxewul noonu man duma ma doxee noonu boobu keneen ku am lu ci leer mën nga wax waaye man Cheikh Ahmed Cissé ñi ñëwoon ci man indil ma kaa bi teguñ leer suma loxo xanaa lii leer na te bañ coupé laa leen gëj a dégg délégué Amar moo def connexion bi ñu wax ma ma jox leen respect ak cër déglu leen lu ëpp deux heures de temps ci suma waxtu fayu ñu ma joxuñu ma laaju ma leen soxlawu suma deux heures laa leen may te temps boo ko joxee dootul ñëw li ma leen laajoon mooy jox leen ma preuve buy wane ne joor daf ci takk ma def la ma war a def indiwuñ ko joxuñ ma léegi lan laa ci mën duma ci wax xaw ma ci dara du ma ne dañuy fen du ma ne joor bokk ci parce que aw ma preuve bu setal joor comme ni ma amutee preuve lu ko dugal joor sa joor avocat la na régler boppam layal boppam du suma fen waaye ñi ñëw ci man wax ak man pour joor indiwuñ preuve bu dugal joor c' est pas que da nga xew da ngay live ay 4000 personnes 3000 personnes di ñëw seetaan kuñ indi rek nga wax lu la neex doxewu ma noonu man soo ma indilee lu ñaaw sax te gisuma ci indi du ma ko def. te ba may wax ak joor joor xamutoon ne ñoom ñu ngi koy dégg te ñoom xam ne ne joor xamul waaye lépp lu ma doon wax ak joor ñu ngi koy dégg. parce que tuumaal nit ci ko am xaalis dafa yomb su ma doon coupé ma dem wax ak joor mën nañoo ne cheikh bi waa bi ñu ko waxee sax daf ñu ne coupé leen ma wax ak joor mu ñëwaat changé avis su ko defee ñu naan dafa dafa lekk xaalis seen kanam ñoom ñoom ñoo ma jox numéro joor ma composé joor jëlul ma ne ko man la Cheikh Ahmed mu jël seen kanam ma bàyyi joor ci suma nopp bi di wax ñoom ñuy dégg parce que ragal naa enregistrement mu génn baati joor génn fekk ma nantema laa ko traité li ma wax ak joor yëpp seen kanam la ñu coupé ñoom ñu continué waat wax ba tey indiwuñ preuve deux heures de temps nga koy expliquer sa problème ñu laaj la preuve indiwuma est-ce am nga est-ce que am nga question la